mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam santa seyxul xadim suñu yaakaar tey ëllëg di ñaanal sëriñ Muntaxa bu yàgg fi lool te ànd ak wér balim naa la sëriñ tu am mboolem suñu xala xulafaa yu toog ci jataay yi suñu borom dafa leen ci ndam ñaan ko mboolem taal bi yëpp mbokk yi dellu si waat suñu jataayu tey bi nga xam ni ñu koy wooye yóbbalu ndaw mu ci leeral comme nañ ko daan leeral rek ndaw mom dafa yaatu lool li fekk yaa ngi man di def di am kàttan rek mën nga boole sa bopp ndaw ñi ñu nekk ci réew moo xam ne itam ndaw ña ñoo ëpp wala sax mën nañu réew yoo xam ne ndaw ñoo ëpp ni ko ñi nga xam ne seen xam-xam màcc jëm ci wàll woowu nga xam ne Afrique ndaw ñi ñoo fi ëpp ba tax na lu fi yëngu rek mën naa jëm seen biir ba tax na suñ tomb tey dafa am laaj bu sampe ci mboolem ku amub jàngat wala nga nekk ku doyub yëngu walla nga nekk koo xam ne itam yaa ngi am yaakaar ci réew mi wala ci sa bopp laaj boobu mooy ban mooy lan moo xew buñ ne lan moo xew nag xel yépp day dem ci ni jamono tëdde léegi nga xam ni ñu baree bëree ñu ngi ràññeeku ak génn àdduna kuy am boo xam ne donte lu war a am la lu baaxoo am la waaye niñ ko nemmikoo léegi eh, demeewutoon noonu mel ne semaine yi ñu génn ñu ngi doon waxtaane coronavirus beeg jee yi muy def mu jógeeti ca ñëw ci malaise yi am nga xam ne nit day doxee ay activité am ci benn mi faatu wala mu dem ba ñibbi si daal daanu faatu yooyee ñu nekk ca suñ borom dolliwaat ca beneen te borom xam-xam yi ñu leen di woowee ak ay docteur daal di koy nemmeeku ci semaine bee ñu génn ñu koy wax feebar sonn te man ñaar wax pays soj mi ñëw dooleeg ko tisa nga xam ne ku rek mën na koo xam ci boppam kon lan moo xew laaj bu mata laaj la waaye day am solo lool nun ñuy am jàngat yoo xam ne dañ koy def ci suñu diggante ak ci nit ñi ak suñu diggante ak suñu boroom subhanahu wa taala yàlla nag noppi woon na ca bu yàgg ndax waxoon nañu ko xëy na kay jamono day dox di dox ba nit ñi seenu yittewoo àddina ak seenu yittewoo seen bopp ak fàtte guñ fàtte yàlla ba tax lu ñëw rek ngir mu yóbbu suñu fi jaaxal leen day yomb waaye riir mi nag lu mu bari bari ki war a faatu ci mbas mu mën a doon bu ca faatu ki war a faatu nag bu mbas ñëwee day faat bu ñëw day faatu ki nga xam ne waru cee faatoo du faatu ba tax na itam sabab daa mën la ñàkk moo tax suñu boroom di teg feebar léeg-léeg ñu ne diw day dafa feebaroon waaye daa faatu ñu miin ko ci waxee wolof ne diw daa génn àdduna ñu ne ko daloon boo nee dara ñu ne xanaa daa def soog mu mel ne kon mort naturelle daa mel ne amut te en kay am na ndax ci sañ a bind sañ a rey ndax suñu boroom subhaanahu wa moo sàkk jaam ñëpp di xool ku ne dat ba nga xam ne ca war a juddu ak dat ba nga xam ca la war a faatu dem noppoo ci yàgg allati xalaqa al mawt wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu xamala waaye li war a ñor mooy li nekk ci diggante bi muy diggante bi nga juddoo ak bi ngay faatoo suñu boroom wax na la lépp xëy na kay sa mébétum àdduna moo la jàpp ba li ëpp ci li ngay bàyyi xel ak faatu ca bokk nga xam ne nit ñi seen seen umpale suñ borom tax na faatu dañ koy wutal heure wutal ko waxtu wutal ko date te suñu borom pareewal ca loola ki faa ki war a faatu waxtu bi war a faatu moom moom waxtu faatoo la tegtaliwul ne day soj wala mu sibru wala mbas ñëw wala mu tawat waaye laa tamit mu tëdd guddi ñu bëri faatu ñu koy xaare guddi bu guddee daal jàpp nañu faatu mën naa waaye bu leeree rek jàpp nañu faatu mën taam ak suñu borom subhanahu wa taala lan xaar ci jàmm bi ba ne faw bala ma ko faar rek dama koy rey néewal kàttanam mel ne ku ko ragal te demul noonu yàlla waxoon nañu ne faatu moom xalaa kulli xaalin day ñëw te jamono bu la mën a fekk day ñëw moo xam am nga miin moo xam amoo ko moo xam lu mu mën a fekk day ñëw te waxoon na ko mooy daa ku faatu rek da bàyyi mébét moo tax mébét bi dañ cee war a boole suñu borom subhanahu wa taala buñ ne mébét mag da nga koy boole suñu borom subhanahu wa taala tegtaliwut ne médecine yi nga xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc jëm ni ki sunu yontu yàlla Moussa tawatoon na tawat boo xam ne ñu tegtaloon ko ak ab reen mu def war koo fàq suñu boroom wax ak moom ci ne ko ndax sa jamono amul waroomi xam-xam ñu seen xam-xam màcc jëm ci loolu ñu ne dooy médecine mu dem ci fajo ji fa kon ñoom it war nañ leen jox àq ju jot na ñu dem fajo ji fa waaye nag respecte yi nga xam ne nee ñu ko def feebar bi du la dal waaye du tey taqatiwut ak dara nangu dogal suñu borom ndax ba mbokk ba ñëwee yor gi ne nga ñëw ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ci buntu jàkka ji bàyyi fa gileem nga daal di dénk naa ko yàlla ñëw julli ji Seydina Muhammad daf koo wax ne gileem gi danga koy yeew ba mu dëgër nga soog koo dénk sunu boroom subhanahu wa taala kon loolu moom la ñuy wooyee def li nga war a def te bàyyi sa sa bopp ak mooy ni ñu ko waxee te docteur diglee ko muy takk masque di raxas say loxo moytu jaxasoo bi Euh, di di di def lépp loo xam ni ñoom dañ koo digle ba pare nag nga gëm ni lii may def ko dama koy def ngir sababu doomu aadama yi bu ma waree dal damay dal kon nan ngay waajale dal gi mooy daal di nag yëkkati sa bopp jëmale suñ borom jël sa bopp sédde ko ëllëg kon bu la dalee bu la dalut du garaaw ndax ki ëppal boppam ki nga xam ne ëpp daa jox yàlla li ëpp ci boppam yàlla dana ko jege-jege goo xam ne toog ak dem rek mooy yem ci moom ni ko suñ tubaa wax jàng jàngalee woon ne nekkal ci àdduna di ko fàggu ba mel ni àdduna kat ku la gis day jàpp ne danga ko def kër waaye ëllëg yomal xiyam nga bàyyi ko xel ba jàpp ne bu ñu ne woon faatu tay tey nga jekk boobu taxi fi ma ateeka allahu daara laaxira wala tan sànni si bakka mina dunya yàlla mënu ko xon kon àdduna yàlla sàkk ko rek ngir tëdd di nelaw ak nan damaa jàpp nag daal damaa dëddu damaa damaa bàyyi xel sama borom ba tax du ma liggéey waaye ku liggéey du ñor la na ko borom daal waxee woon ku liggéeyut doo toog ku toogut doo jaamu yàlla ku jaamu yàlla bu dee dem sax du dem àjjana kon loolu moo tax bàyyi xel kon àdduna dañ koy wut waaye nag wutee ko ngir lan loo teerloo ba mën a jaamu sa borom waaye ëllëg nag ëppal ko ci tey nga xam ne ëllëg na la gën ci tey kon defe naa ne lu fi mën a jaar suñ suñu borom dana tàggal sa xol tàggal sa ba nga xam ne na faatu ci ak ke ak ak ak bare nga yemal ku faatu da ngay koy denc te ñaanal ko te xam ne yow tam yaa dana ko njëkkee rek waaye yow yaa ci des kon mbokk yi loolu yi des mën a jàngat ci euh, doxin jamono di wàccee suñu kàddu ci aayab suñu borom boobu moo xam ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juux wa naqsin min al amwaali fi si والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أثابتهم مصيبة a إنا لله وإنا إليه راجعون ndax yàlla kat daf ñoo waxoon ne dinaa leen nattu waaye bu ko waxoon ne ci yàlla dana mel ne lu xaw lënt waaye mën nañu dinaa leen nattu ci ay yëf yoo xam ne dana leen tiitloo tiitloo nag doomu aadama yi ko mën a tiitloo bëri na moo tax mu njëkkee joor maanaam ab xiif xiif rek moo mën a tulloo doomu aadama ndax seetlu na nemmee ko nañ ko ci bi couvre-feu njëkk njëkke rek biñ demee ba nit ñi yoratuñ ñu lekk ba ñu ci bëri di yalwaan dañoo jekk ci rek fipp jaay jaay seen bakkan kon xiif am nattu la ci nattu yi aku wàññeeku wàññeeku nag dafa yaatu maam suñu borom teg ci na minal amwaal yi ba naq si minal amwaal wala anfusi wa samaraat naa leen nattu ci wagne ko wagne ko ci lan seeni alal ak seeni bakkar tol na ci rek ndax buñ démé ba ñi daan liggéey di wàcc 19 h c'est heures lañu ñuy kon économiquement yow sa place bu fekkee ngoon la daan dox li nga daan wàcceel da dootu bëri ki nga xam da daan jaay lu ñuy lek diko ko jaay guddi ku fa ñëw kooku day ko lool ci ndax yi la bokk waye li ñu tax di wax nak wala fa ci muy seeni bakkar fii jamono toll yàlla gi di denc ji moom moo fi gën a nekk actualité sax génte yi am na koy wax barki démb nee na ne moom mën ngaa gis baas boo gis xamal ne ab dëj la te loolu ku nekk boo ko jàngatee ci koñ bi nga dëkk da nga ko xam ñëpp nemmeeku nañ ko ko bakkan googu mooy waaye loolu mooy muñ gi lu mu ca teg ba samaraat bu fekkente ne nit ñi dañoo xiif économiquement ku ne la nga am denc nga ko baykat bi na mu amoon a ko si néew du ko doy ndax bu gis koo jënd léegi da koy lekk bu ko lekkee nag day wàññeeku man des na ko firee noonu waaye tamit euh, bu ñëwee ci nawet bii di jàll rek maa ngi fi waxtaan ak benn baykat mu ne ni ndox mi bëree jég miinuñ ko ne nawet bi guddee miinuñ ko ndox mi bëri nawet bi gudd na waaye gàncax amul te ñax mi sax te lépp sax na waaye tamit lay baatin ba muy gerte gu dis gaab yooyu moo ci amul kon yàlla dara ajub dara ci dara lépp aju ci suñu moo tax natt la ci biir natt yi booba nu ñuy def dallu ci suñu xel ca la yàlla waxoon yonent bi booba siri saabiri nag ñu bëggal leen ñan la ñuy bëggal nag ñi nga xam ne bi lii ak dañoo muñ te ñaan seen borom muñ rek muñ nag dafa bokkut ak daan mu ngi noonu fasbir inna waxdallahi xaq wala taqfa naka lati laa yaqulun maanaam yàlla li mu teg baaraamam ne muudu kan da koy am loolu dara bu ci dañ moo tax li fi nga koy am bu dara gàllankoor rek bu loolu bu sa yoon nekk jàppal ni yàlla mooy def li mooy def mën na laa yóbbu nga am leneen li nga bëgg kon loolu mooy mooy diggib suñu borom nit koy waxee ci dee kon allazina ñooy ña nga xam ne isa asaabatum ba mu leen jotee musibatun musiba yakat xaaloo leen rek lañ wax ñoom xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi ñun daal li am ba mooy xaaloo wax nañ ne inna naka ñun lillaahi yàlla moonu moom waaye naa ilay te ci moom raajifoona la dellu kon loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy lépp nga xam ne boo xam ne ci yàlla nga jóge rek dara du la tiital nag ñoom ñooñi dana ay xéewal yoo xam ne dana tukkee suñ borom ñeel leen ñoom ñi muñ ak ay yërmande kon yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ni lu yëngu ñu delloo ko ci yàlla bu laajee mun ñu mun ko bu laajee sant ñu sant ko yàlla defal ñu tawfeex ñu fekk geneen alxamis ñaanal mbooleem ñu tawat bi laal ñu wér bañ leen laal mu jeex ci jàmm bañ delluwaat ci yitte yàlla man na ko te sañ na ko te def keek bari mooy moom mën na ko def kon yàlla nañu ko yàlla defal wa axiru daawaana an alhamdu lillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala